en tant que acteur de développement nekk yor entreprise xam nañ ni feebar bi am na si ñun impact. parce que depuis ba feebar bi commencé ba léegi am na suñuy bateau yoo xamante ni mënuñoo dem en mer ay bateau de yoo xam ñu ngi fi parce que bateau kat ay nit ñoom ñoo koy liggéey. donc amoon nañu suñu marin yoo xamante ni wàccoon nañ à terre mais amuñu woon possibilité pour déplacé wu pour ñëw embarqué te sax eh, état bi aussi dafa jëloon ay mesures de ne euh, marin bu nekk à terre kenn du jël risque di ko embarqué si bateau yi muy contaminé ni ñi donc tey je pense que ni rek loolu c' est un manque à gagner énorme nga toog say bateau yoo xamante ni ñoom ñoom dem di di dëkk di wàcce marchandise di jógal marchandise mënuñoo dem donc loolu bu ñu toogee presque trois mois liggéey ñu rek mën a am impact si yow li li ngay liggéey te je pense que impact boobu ñu ñëpp sentir nañ ko bu baax donc nag pour ma évaluer le chiffre yi daal mën naa leen ni presque sunu soixante dix pour cent chiffre d'affaires wàññeeku kon kon waaye wàññeeku na parce que ku xam euh, secteur maritime ba xam ni mooy secteur bi nga xamante ni mooy dugal lu ëpp xaalis ci économie bi parce que tey boo xoolee port fa la euh, douane euh, douane bi foofu la nekk eh, état li muy jël si recette hmm, douanière dafa bari. donc nag bu ñu demee ba bato yi waroon dem de de dem demuñu wala ni ñu waroon eh, liggéeyee. mu am retard parce que ay nit ñooy liggéey ay bato bateau bu ñëw port ay nit ñoo koy wàcce mais eh, état d'urgence bi ak couvre-feu bi moom moo doon tax ñun dañ doon wàññi suñu heure liggéey. parce que même si nous autorisons les bateaux de 24 heures sur 24 mais aussi, nous aussi, avons pour te déplacer. Parce que ça fait que de heureux dans le transport, et aussi les restaurants, aussi dans le temps Ce que je veux dire, c'est que l'État est assouplir.

te je pense que tey la ñu war a gën a mën a taxaw xeex mais léegi xeex bi dafa war a nekk xeex individuel parce que ni nit ku si nekk yow yaa taxawoon ni kat dafa bëgg pour ñu dindi mesure barrière donc tey je pense que ni ku si nekk war nga mën a def confinement individuel xool euh, respecter les mesures barrières yi nga xamante ni moom la fi euh, euh, état bi teg pour que mesure d'hygiène yi nga xamante ni wax nañ ko nit ñi mën continuer di ko respecter parce que feebar boo xamante ni te wàññeekuwul teeluwul gannaaw te mënuñu toog rek di di di ko xaar kañ lay ñëw donc man dama jàpp ni on doit vivre ak côté du virus mais pas avec le virus. mooy xool fan la virus bu nekk ñu jëm ko moytu bañu aussi yàq suñu activités yi dara ñu ànd seeg dal ak tey ak yar. ba ba mesure assouplissement yi ñu teg ku si nekk mën koo respecté mais aussi nga war a mën a xam ni feebar bi xeex la ñu ñëpp si war a àndandoo xeex ko ngir mu gaaw fee jóge dogal bi dama koy rafetlu bi nga xamante ni le président Macky Sall du moom la jël parce que njiitu réew da nga war a déglu sa askan parce que tey askan bee ko soxla woon ñoo ngi si doon sax euh, remarqué ay manifestations ñuy génn ne dafa doy dafa doy couvre dafa doy donc je pense que que ni c'est à l'issue de ça si lañu jël ay ndogal nekkat dinañ def ay mesures d'assouplissement donc loolu day wane rek euh, euh, état bi aussi mu ngi ngi déglu askanam donc nag tey bu état bi ñëwee dogal loolu ñun dañ koy rafetlu mais di rek ñaax askan bi ne loolu bu ko defee. du loo xamante ne état bi da koo def pour bàyyi ñoo feebar bi mais aussi ñun ñoo war a jël suñu responsabilité nekk suñu eh, kilifa bopp moytu mm, euh, jafe-jafe yi nga xamante ni di feebar bi mën nañ ñu ko teg donc moo tax daal di ñaan rek askan wi ñu gën a respecter li mesures barrières port de masque bi ay euh, moytu nuyoo bi moytu raxasu bi moytu aussi certains rassemblements yi Thank you.